jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bi xibaar yi la ca gën fa démb nag foofee ca terrain HLM bu Grand Yoff ci Ndakaaru après que xeex moo fa daal di am ci diggante rek way militant yu Ousmane Sonko yi ak ñi farek ak Khalifa Babacar sàll kon déggowuñu benn yoon ci wax yi nga xam ni ñoom lañ doon yëkkati ginnaaw bi ñuy sàkku ngir njiitu réew mi daal rekk amal élection présidentielle laata mu fi jugee mu mel sax nag benn yoon dañ doon sànnante ay xeer ca manifestation bile mu daal di rek pëccëxoo ginnaaw rek ñi xam ne ñoo fa teewaloon Khalifa Babacar sàll ba ñu yëkkati ay kàddu ña fa nag Ousmane Sonko ñu ànduñu ci benn yoon ndax nag jàpp nañ ni kon ñoom lépp rek ca ñoom la sooxee ñoom nag kàddu yi sax yëkkati nañ ko itam ci suñu natango bile di i rajo ñoom leader bu taxawu Sénégal Khalifa Babacar Sall moom ñaawlu na xeex bi waaye ñaawlu itam rek la nga xam ni moo fa amoon amoon jëm ci seen biir mu ni loole soxlawuñu ko benn yoon tey jile la ñu bëgg mooy njiitu réew mi jóge ci bopp réewu Sénégal laata ñaari fan ci weeru avril Mamadou Mbodj coordonnateur bu F24 la moom itam rek moo nduroo moo daal di rek wax li nga xam ni moom la Khalifa Babacar Sall itam wax mu ni xalaatam kay ku jëgi dañoo war a booloo rek kon daal di fii jëlee njiitu réew mi mag Macky sàll nag ngir rek mu amal élection itam balaa mu fi jógee ndax ñaari fan ci weeru avril lay jeexal nag mandaawum file ci bopp réewu Sénégal. Mamadou Lamine Diallo di nag conseil constitutionnel ci dogal bi ngir nag mu daal di sauver réewu Sénégal mu jàpp ni njiitu réew mi li nga xam ne def na ko ci ba muy tëj rek dialogue national bi ginnaaw rek lu jëm. ci xamal ñu nag datu élection yi kañ la jàpp ñu woon ni kon rek dana egg ci weeru gi li wala itam rek war a pàcc bi nga xam ni ci la ñu daal di jëm mu ñu nag moom Mamadou lamin jàlloo moom leader bu mouvement tekki di woo itam rek kon njiitu réew mi ak conseil constitutionnel ñu amal li nu mel balaay rek yeneen di ci topp ndax gis nañu rek événement yi nga xam ni moo fi am kon bu weeru koor gi passé tey jële gis nañu nag ni njiitu réew mi dina jóge ci bopp réewu Sénégal ñaari fan ci weeru avril te loolee yàggatul dara mu mel ni kon weer rek moo ci des dañ koy ñaan kay mooy ñu def élection présidentielle moom kàddu yi mu ko yëkkatee ca grand jury tey jëlee bi muy amal émission bi moom député conseil constitutionnel jàpp na ni kon fi mu nekk nii ñoom rek la ñuy xaar ngir nag ñu daal di xool ndax ñaari fan ci weeru juin boobee dañ koy jàpp waa wala tamit lan moo génnee. rek ca dialogue bi nga xam ni defoon nañu ko moom njiitu réew mi ak ñamu àndaloon jàpp na ni kon tey jëlee daal ci ñoom rek la des ak conseil constitutionnel te loolee dana rek daal di sauver avenir aveniru Sénégal ak itam bi rek Afrique sowu jant jëm rek ci li nga xam ni moom la ñuy xaar ginnaaw conseil constitutionnel ndax njiitu réew mi daal mënul rek yokk mandaawam fii rek la mën a yem.